bismillahi rahmaani rahim inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan walaawu yaxsimuka minanaas ya allah barke borom tuuba eh, waa daarey sëriñ naar asan eh, seen mbokkum taalibe mu dellu eh, di leen siyaar di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Assane Diop xidma moo leen di siyaare sëriñ naar asan Eh, di jiital ci siyaar bi nag sëriñ Assane eh, moom sëriñ Naar Assane di xalifab sëriñ Naar Assane eh, di ko siyaar ak mboolem ay rakkam yëpp di siyaari jëwriñ ñi kër sëriñ Naar Assane yi nga xam ne ñooy magi murid yi taalibe yi àndoon ak ñun ci liggéey bi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare di siyaare jigéen ñi di siyaare soxna yi bàyyiwuñu kenn gannaaw bi leen jottalee tamit. Eh, kàddug sëñ asan am njaalam ak siyaaram ci mboolem njabootu sëriñ asan gi yëpp njabootu sëñ omar gi yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo aju ci sëriñ naar asan eh, ginnaaw bi ñu leen jottalee ab nuyoom ak siyaaram eh, mi ngi xamal ñëpp itam ne juróom-ñetti fan ci weeru février ci lay ni ñaanal sëriñ bi ci Mbàkke su ko defee kon ñun ñëpp ñu yëgandoo xam ne ñaanuk sëriñ naar asan gi euh, altine lay doon euh, le 8 février ci Ndiobène Mbacké euh, di sàkku ñëpp ñu ñaanal ko fu waay nekk ñaan gu waay man rek nga ñaanal ko ko yéene ko yool bi gannaaw loolu tamit ñoo ngi jël ñun sunu siyaar bopp sunum njaal di ko siyaaree mboolem dawlatu kër sëñ Omar yëpp Eh, di ko siyaaree xalifa sëriñ Assane muy sëriñ xalifa Diop mi nga xam ne tey moo fi nekk di jëmmi sëriñ assan moo ko ay rakkam sëñ Ibrahima Diop buñ ko tuddee tuddaale nañ ñëpp eh, sëriñ xalifa moom eh, ku meen sëñ naar Assane miin kër sëriñ Omar xam nga ko moo masa doon tànki kër gi masa doon kàddu kër gi masa doon généralu kër gi kon liggéey bi nga xam ne magam ju baax ji liggéey na ko ba jël lépp teg ko ci loxoom yàlla na yàlla yan bi oyof euh, noonu la ñuy siyaare nag ki nga xam ne moo fi nekk di sëriñ Omar muy sëriñ malit yàlla na fi yàgg lool nga xam ne dundam gépp da koo toppe dundam gépp da koo joxe ci sëñ Omar ba mu jeex tàkk tey ji euh, magam ju baax ji nga xam ne moo fi wàcc muy sëñ san liggéey liggéey bu sell bi jox ko ko yàlla na yan bi oyof mu yóbbu ko fa nga xam ne moom la ko sëriñ Assane Diop doon nee doon doon doon doon diir muy mu jolle rek jëm ci kanam ànd koog dawlatu kër sëñ Omar yëpp noonu lañ ko siyaaree tam umul islaam yëpp jiital siyaar bi nag ki fi nekk muy xalif général de Mouride muy Cheikh Modou Mountakha eh, yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak njabootu sëriñ Touba gi yëpp ak cheikh yi sëriñ Touba yëpp bàyyiwuñ kenn ak jullit yi eh, sëñ Naar. Euh, ginnaaw bu ñu defee siyaar ba noppi mën nañ cee dolli tuuti témoignage euh, buñ ko doon témoigner de dañ ci tànn juróomi tomb rek ñaar yiñ ciy jiital moom euh, ku min sëñ Fallum Cheikh Modou Mourtala min nga mu koy wax naan sëriñ Saliou daana ko faral di wax lu bari muy yëg ak yitte kenn ku ne xam ne sëñ naar yëg ak yitte moom bu dee bu dee yëg moom lim ci jëflanteeg doomu aadama yi jëflante ko askan wi. jëflante kook njabootu sëñ Omar gi jëflante kook dëkkandoo yi kenn ku ne xam na ko bu dee yitte tam noonu la ko jëflante ak ñoom waaw musul xàmmee taalibe bu mag musul xàmmee taalibe bu ndaw musul xàmmee ku barle wala ku néewle da daan taal otom ñëw ba ci sa kër ne la yow laa yow laa seet si tey nga nga nga nga nga nga nga nga def la nga man muy dem yëkkati mu jóg yëkkati lu rëy jox la kon nag kooku kom àndoon yàlla rek la ànde woon ak yow eh, ak liggéeyal sëñ Touba yàlla na nu ko yàlla fayal eh, ñu mën a témoigner ci ginnaaw yëg gi ko jàllee ci fit wi ak njàmbaar gi ndax tey jii eh, njabootu sëñ Omar gépp de koo ci wax mu ne ñun sëñ Naar moo ñu defal promotion sëñ Naar moo ñu defal am ngatandu ndax sunu sunu penc mi mucc mucc na ci lépp loo xam ne lu lu lu yàlla gërëmut la ndax moo fi dindi fi am po moo fi dindi lépp loo xam ne euh, lu yàlla tere la moo ci doon teg bakkanam bi euh, ku ko xam ko nag xam ko digganteem ak Cheikh Abdou Lahad euh, sëñ naar doo ko tudd te tuddoo sëñ Abdou Lahad noonee Cheikh Abdou Lahad ñëwoon taxaw dindi Touba lépp loo xam ne yàlla da koo tere rek noonu la ko dindee ci pencum Ndiobène ñun nag liñ mën a seede ci sëñ bi day bari lool waaye suñu xol moo fees Eh, ndax ku nu xam-xam suñu digganteeg sëriñ bi eh, ndax sëriñ bi yëkkati woon na kàddoom eh, joxoon nu ko ne woon nu magi taalibe yaa ngi fi ndaw ñaa ngi fi jarbaat yaa ngi fi rakk yaa ngi fi waaye ñoo la tànnal maa la tànnal sama bopp di la yónni nga may demal ci réew yi atum mille 2002 lañ ko tàmbali woon wàcc nañ ci réew yu bari ci àdduna bi yëg googu ma doon wax ak yitte ji rek la ko yàlla fayee euh, mboolem taalibe yi nga xam ñoo ne ci bitim réew it fu ñu seedee jëf ju sëñ naar jëf ci yoonu sëñ Tuubaa rek danañ leen ci ja booleel di jaajëfal ndax sëñ naar ku dégg ndawam ci bërëb rek woote nga laaj ba xam agsi na wala fu mu nekk mu jaral la jóg wala nga yëkkati sa jëf joxe ko ngir sëñ naar loolu mënees na koo seede ci taalibe yi aju ci moom. ak ñi nga xam ne eh, dafa da da leen a joxoon yëg ak yitte rek ànd ak ñoom sëñ Touba eh, loolu tam ñoo ngi koy siyaare mboolem eh, adduna bi yëpp sax la ñuy wax di waxit ne ki nga xam ne tamit moo fi nekk muy Serigne Assane di taawu sëriñ Naar Assane nun fedd la nan sun la xasaay ndax Serigne bi boole woon nañoo moom ci nekkam xamal na nu mooy jëwriñ ji. nu ànd ak moom kon noo ngi sàkku ñu ñaanal ko ba liggéey bii nga xam ne euh, jàmbaari sëñ Omar euh, di jàmbaari sëriñ Assane yëkkati liggéey bi teg ko ci loxoom moom it mu mottali yéene sëriñ bi moo moo rakkam noo koy sàkku ñëpp ñu ñaanal ko ñu ànd ak moom ba liggéey bi nag yan bi oyof toy oyof toy ci ay waajuram ak ki fi nekkal sëriñ Omar Euh, loolu daal bokk na ci li nga xam ne dañ ko doon indi di ko siyaaree dawlatu kër sëñ Omar dawlatu àdduna bi yépp euh, yàlla na nu yàlla taas ci barkeem euh, loolu rek lañ doon indi sëñ naar nag daanaa wax naa ci témoignage bi ci njàmbaar gi waaye lim liggéeyal sëriñ Touba nag liggéeyal ko sëriñ Omar loolu tamit ku xam sëñ naar xam ne dooleem jëpp da koo jëf ci sëñ Touba dooleem da koo def ci ci Cheikh Omar liggéeyam bépp da koo liggéeyal sëriñ Touba ak sëriñ Omar sëriñ Assane eh, ndax sëñ sëñ naar kenn du tudd poroxaan te doo tudd sëñ naar ndax diggante Cheikh Moustapha ibnu Cheikh Mamadou Basir diggante sëñ Basiru ngay wax eh, ak sëriñ Assane waaye diggante sëriñ Assane nag ak doomi sëñ Basiru yi diggante sëñ naar asan ak doomi sëñ basiru diggante sëñ naar asan ak poroxaan nga xam ne fépp fu sëriñ asan bàyyi liggéey fu sëñ asan yemoon ci liggéey booba rek liggéey boobu yemoo daa continuer daa gën a jolli baatu jolli boobu nga xam ne sëñ asan moo samp jolli ci kër sëñ omar euh, kenn ku ne xam ne fi mu yóbbu liggéeyu poroxaan ci digganteem ak la mu fa daan yóbbu ak seex seex Mustafaa ba ci ba ci seex Moodu Muntaxaa waaw nga xam ne fu poroxaan ñëwee njabootu sëriñ Amar gépp seeni xel delluwaat ci Eh, liggéeyub sëñ Naar Assane eh, ak Cheikh Modou Mountakha liggéey sëñ Naar Assane ak maam jaar liggéey sëñ eh, sëñ sëñ Naar Assane ak Porokhane rawatina jàmbaar ja sëñ Moustapha ibnu Cheikh Modou Basir yal na na yàlla yokk leeram waaye nag sëñ Naar Assane yi tamit kenn ku ne xam na ne moo nekk juróom-ñaareelu xalifa Serigne Omar mooy sët bi mag ci kër Serigne Omar. kenn ku ne xam ne ne mooy sët bi nga xam ne tamit ñëpp nangu nañ ne liggéeyal na xalifa xalifa sëñ omor bi njëkk ci doomi sëñ omor yi muy sëriñ Assane liggéeyal na sëriñ Assane ba sëriñ Assane gërëm ko yëkkati liggéeyub sëriñ Assane teg ko ci loxoom mu liggéey liggéeyub sëriñ Assane tey jii ba jébbal ko rakkam ji yàlla na yàlla na yàgg euh, tey jii noonu la noonu la ñëpp mën a seede itam Assane digganteem ak doomi sëñ diggante ak penc mi noonu la ko ñëpp mën a seede loolu euh, lu ñëpp mën a seede la waaye nag wax naa ne euh, sëriñ Assane moo njëkk a doon sëñ Omar dajale lépp sëñ Omar ba dara saawul indi baatum na jolli ba tey kenn ku ne xam na ne mbirum sëriñ Assane jolli na euh, ki njëkk nekk xalifab sëñ Omar di xalifab sëñ Assane muy sëñ naar Assane tey jii kenn ku ne gis na fi mu yóbbu liggéey sëriñ Assane eh, ànd ak doomi sëñ Omar yëpp liggéeyal leen ba ki fi mujj muy sëriñ Maxtaar yàlla na yàlla yokk ay leeram biñ wuy jëyee sëñ Omar ñoom njabootu doomi sëñ Omar yi eh, kenn ku ne xam ne ne diir bi gàtt na lool waaye sëriñ naar Assane na sëñ Assane tàmbalee woon. noonu la mottalee liggéey bi bi mu ñëwee dajalewaat na lépp sëñ Omar ka war a jiitu jiitu ko ca war a topp topp ci ñu àndaat ngir baatu na jolli jëm ca kanam tey kenn ko ci fëgg ab dënnam la muy njëkk a daj mooy liggéey bi jolli rek euh, pencum sañ Omar lañ doon dégg njóobeen Mbàkke daaray sëñ Omar lañ doon dégg euh, ci njóobeen Mbàkke waaye résidence sëñ Omar nag. ni ko Cheikh Abdoul Ahad indee ci soowu jumaa ji noonu la ko indee ci penku kër jumaay sëñ Omar ji résidence sëriñ Omar tey ku ñëw njóobeen danga nga fa gis kër xalifab sëñ Omar te loolu bi mu doonee sëñ Omar la fa doog am kon baatu joll bi moom e, séentu nañ ko gëm nañ ne yàlla xaasale na ko sëñ Arasan kon nag ki fi nekk di sëñ malik yàlla na liggéey bi bam egg fa ko sëñ Assane doon natt di ko fa diir ci barkeb sëriñ Touba barkeb ki fi nekk muy sëriñ Touba Cheikh Mawdul Muntaxa yàlla nañ ci dajeeg barke waqi di waaye jële si na daamoo fi xidmati wablahum maaraamoo inna li seen a saarahon li xidmati walaw mu diyaar wasal janati seen bokkum taalibe Assane Diop xam naa da doon wax rek ci ay témoignage waaye jafe na ci moom euh, lu ci jag rek ñu xam ne ci ndimbal la lu ci dëng ñu xam ne ci tolluwaay rek la doon wax ñoo ngi tuubal ñëpp di baalu ñëpp